mu ngi noonu mbokk internet yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw fii jàmm gën seet fii benn xale boo xam si ni wax naa leen ne bokk na ci xale yi nga xam si ne nii actuellement nii waxuma la Sénégal mi àdduna war nga këpp ah dañ koy bàyyi xel muy Laurent Ndiago boo ne Laurent nag sa xel dem ci euh, pépinière yi nga xam si ni tey ñoom ñooy nekk ëllëg ay champion ay ndaanaan ci wàllu bëree bu njëkk bi nag coow li bëri woon na Laurent mosul bëree mas naa bëree bëriwul daanul kenn mais keroog premier vraiment bett nañu bëree bëri si xeetu bëri bi mu bëree ak qualité bi nga xam ne moom la daane adversaire am loolu xam naa du ñàkk dañ ci ñëw waxtaane ko euh, mu décorté ko Laurent ñu ngi lay nuyu. yaa ginnaaw ma sant yàlla di jul si Mariama sell mi di sant samay ñaari waajur di ñaanal àdduna yàlla na fi jàmm yaatu di baalu ñëpp àq di baal ñëpp bar sëñ Bamba. mais tey la ko rek baalu ñëpp àq lu waral loolu. noonu la demee man naas damay amal nit ñi àq bilaay yee tamit xam nga tamit am na ñoo xam ne am si man tamit xam nga baakaar yee di baal ñëpp di jégal ñépp waaw. ñi am si yow baakaar comme. maanaam xam nga rek day am ñoo xam comme nii may waxee nii rek yee xam nga tamit nit dafa doy waar mun nañ ne kii daa màndeeg yooyu yee si laay xalaatee tamit quoi bilaay. yee képp ku may xam nga wax baatu ginnaaw man baal naa la àq bar si yàlla. di jéggalu ñëpp yee muy lu am solo baal ñëpp àq baalu ñëpp àq muy lu am solo SBT Média seen émission seeti mbër ñu seet si ki nga moom mooy Laurent Ndiago mais ñu tàmbalee ko si actualité bi gis nga ko fan yi ci di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaye nag di euh, ndokkeel ñi nga xam si ni ñoo jógee ci gàmmu gi di ñaan suñu borom dafa leen tawféex ñu teew ak ay ati ati at macha allah waaye nag di jaal ñi nga xam ñoo fi génn àdduna ku si mel ni Mbaye Sapar Sapar waaye ku si mel ni euh, Fa Mbaye Ah, di ñaan suñu borom yërëm leen xaar ci aljana yi kawe ci barke yonent bi sallallahu alayhi ah, lan nga ci yokk waaye waa di leen ñaanal àjjana rek su mel ñoom mbay yee ñoom maanaam seen nekkee noonu fii dafa rafet billaay walaay yee di leen ñaanal yàlla na suuf oyof seen kaw yàlla na leen yàlla àtte si yërmandem xaare leen àjjana yee xam nga ak ñëpp ñuñ fa fekk yàlla na leen yàlla jéggal seeni baaxaar yee ndax ñun ñii ñëpp dëkkuñu fi ku matal rek da dem Eh, cooli mun na bëri ku ne di wax mais ñun ñëpp dañuy mbuggee xam nga fa yàlla eh, nay rafet rek yàlla na yàlla jégal ñëpp seeni baaxaar waaw. génn àdduna mbay saapar nga ko yëgee. kii moom ma ko wax wulli wulli dañoo àndoon di dox di dem xam nga mi xool estati rek gis ne ma comme ça daa wàcc ma ne ko waaw billaay noonu laa gisee si moom affaire tamit xanga nga torop barki yàlla. mais tamit xam nga yàlla soxlee ko soxla ñàkk yàlla na suuf oyof si koom yàlla jéggal ko ay baaxaaram xaare ko àjjana ndax moom exemple la woon daal bilaay ci ay waxam wax lu baax def lu baax bégal nit ñi rek nekkoon macha allah. waaw nga loolu dafa neex nit del bégal nit ñi rek yee bilaay yow leeral la ne kooku àjjanam leer na ndax fekk na ko mer yee mu reetaan loo ko fekk ñuy xuloo mu jiboole leen bilaay walaay comme waaw amuñu lu dul di ko ñaanal waaw yàlla xaaree ko àjjana firdawsi bila yàlla àttee ko si yërmandeem rek. ñu ngi noonu SBT Média la seen émission seeti mbër ñu seeti ki xam moom mooy Laurent Ndiago di wax ne ngeen abonné ba seen tous cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi ko dugal ngeen mën si ànd ñun waaye nag du nuyu ñaar ci man muy Fallou Galas Baye Mbène borom Géejawaay borom marché Sam sama doomu nday doomu Pape Moussa Gningue ah macha allah di nuyu nag Modou suñu grand frère di ko nuyu baax baax di nuyu abi borom ceeb yi neex yi ah macha borom soos yi neex yi mais mais mais ginnaaw. ginnaaw non damaa bëgg ginaar moom. da bëgg ginaar kay. Ah, dafa am solo. yow yaa bëgg noos noos nga bëgg dañuy noos coojuwul du ko yàq de. billaahi dégg ginaar añ. non fi mbaama fi am de. Ah. waaw. Ah. bu saf kay. xaay na. mais bii moom du ma si du ma si du woo ñoom kii euh, nu mu tuddati ñoom benn saa mel ni borom France ñooñu moom du ma leen ci invité quoi. Ah, waa coogibul yow mun nga leen benn woo mais xaay na de. waaw ah. ah. li si day ñëw dañuy dóor ba gàtt kay. ok ngi noonu Laurent Ndiago mais mu mel ni que ginnaaw euh, génn àdduna mbay saapar saapar am na beneen koo xam si génn na fi muy ku ci mel ni Fa Mbay bu waale. yee waa gis nga tamit gi nga ñoom ñëpp ay borom baax lañ. mais gars yi da war di jàppalante rek bilaay dangay gis ku feebar koo xamante ne ni weccet moo koy faj mais gars yi duñ si dox duñ si wax yee ba xam nga yàlla jël tamit bakkanam ñu ñëw di si def xaalis si dëj bi waaw yee loolu noonu tamit xam nga du àdduna quoi nit soo ko ëppalee dara rek xam nga da nga ko war a mën a woon di ko si jàppale yee bilaay ndax fii ni temps bi kenn wérul nañuy jàppalante bëri nañu feebar ñoo xamante ni suñ leen jàppale woon ñu jug fuñ tëdd billaay wallaay taalaay waaw mais gars yi dañuy yor di nag yu nga dee ñu bëgg a wane seen bopp di feem ku nekk bëgg gis leen ma lool du temps bi du aar bi de billaay su ma dégg am na ñoo xam ne dañuy feebar 500000 war leen a faj ñu leen di bu buñ dee ñu génn ay 1 million ay 2 ko def ci waaw billaay loolu day am gars yi noonu lañuy joobe mais tamit ñooñ di def loolu seen xelam motul rek ak tamit bëgg média bi téem leen ñu leen di gis ku ne di leen xool mais loolu du temps bi de. dafa mel ni dafa mel ni léegi Laurent nit ñi defatuñ ngir yàlla maam léegi bu ñu bu ñu lay defal dara sax il faut caméra noonu la demee foog média bi tàkk am na ñuy def te yàlla tax rek am na ñoo xamante ne moom tamit xanaa dañuy def ngir gis leen ma eh, ñii di def te yàlla tax xool duñ si bëgg a feeñ sax billaay mais tamit lépp yàlla la rek su la yàlla amee lum la dénk xam nga yee eh, xalaatal ni yàlla la ko dénk. barki yàlla ya xoolal xam nga noo koy régler mu normal rek eh, si ngay am lu bari bilaay walaay mais tamit xam nga am yenn moo nii ba pare di jaay funki funki lu loolu moo loolu yaa ngi si erreur de da fiy bàyyi. bu bëree waaye yow soo deewoon sax yor àddunay alal nga dee ne leen nañ ma suulaale sama alal après day seey foofu noonu barki yàlla alal doo ko yóbbaale. Eh, tasal marché bi rek mu jeex ko waa bilaay dara du alal waaw am nit ñi moo gën sax am alal barki yàlla. boo amee nit ñaa ko dara Assane Ndiaye. juumul eh, juumul nit ñee ma gënal téeméer gi yoon alal yéen nit ñi kese bilaay lan mooy. alal day xaar mun nga am alal tey dee alal du xaar yee tamit mooy lool. soo amee xaalis soo dee xaalis a lay suul waaw nit a lay suul comme man nit yéem a gënal alal waaw. est-ce que est-ce que est-ce que Laurent am na ay xarit. am na ay xarit. Hmm. waaw loolu du wax da nga fay mos a ñëw maag yow kese kese def émission hmm. saa soo ñëwee da nga may fekk ak samay gaan am na ay xarit de aw ma àdduna ay xarit laa am àdduna yeah. àddunay xarit laa am ba ñuy booy ba tey ba ñuy xale ba tey man aw ma xarit bu bees ba may xale ba tey ñu may àndal laa àndal ba nii nii ba may xale ba tey bilaay. actuellement 2021 yaa ngi si ñaata at. amaguma at de ah amaguma at de 6 mois 7 jours kay le 24 11e mois. lay doon sept mois waaw sept mois. sa anniversaire kañ la sa date anniversaire kañ la. waaw la la vingt quatre onzième mois waaw si laay happy birthday to you am birthday te duma dee. le vingt quatre le euh, mois bii di ñëw. waaw bii di ñëw ni waaw. non yëpp la anniversaire àdduna la. waaw ah, noonu la demee de gars yi nañ ko waaj rek nañ ko waaj rek. dina neex dina yëngu de. ay yan xeet waaw ay xappi am bës rek te duñ dee. waaw longue vie à toi lay doon rek. bilaahi ci la ci la sama xel dem ci borom borom Leewtoo TV macha allah animateur bi mag bu nga xam ne wax naa émission lamb kenn mënu ko si doomu Diourbel borom Leewtoo di ko wax soit sa anniversaire à base de tuy borom le 28 octobre moom nee na ma le octobre moom mooy borom. ah waaw Mbaye Babacar waaw na jël borom Leewtoo. yee yow xappil rek am bës te doo dee comme que loolu nga bëgg yow borom njaarem borom waaw gis nga yoonu Touba bi la du ko yàq de yee est-ce que euh, actuellement nii Laurent maa am ñëpp li ñuy wax mooy Laurent est-ce que dina am soxna Laurent kañ lay takk soxna ndax Isa dina am soxna. loolu wax la. ah gars yi moom cest à jigéen quoi duñ wax sax duñ sax ngay kaf ak jigéen ñi di wax ak ñoom ak yooyu. waaw damay foog jigéen ñi damay kaf ak jigéen damaa bëri xaritu jigéen. yee xaritu jigéen naax laa si am du jeex du xaaj. samay waay lañ. am nga gel. ma gel nag. yee. kon fi su ma waree doxaan rek naa doxaan amaguma gel de. Ah, moo tax gars kon Laurent du takk jabar. Ah, man may góor damay takk jabar de damay takk jabar ba naaw. yee benn jabar rek. waaw su ko laagee rek su ko laagee ñu takk benn jabar waaw. bu laaj. ñu def ko mais daal damay takk jabar. waaw fii des na ko amagul at moom takkagoo jabar amaguma at daa teel. xam naa sax takk jabar naru mu ko fekk quoi boobu. ah daa teel de. daa teel sa teel na moomin laa xale xamul dara yàlla toppeewu ma dara comme du ma takki jabar heure bii di dof dof lu fii mi ngi noonu SBT Média seen émission seeti mbër ñu seet si lu léegi nag ñu dugg ci làmb ji sa digganteek ak plateau coow li bëri ah. wàccaay yu yàgg ah ren jaar Pa Sarr Alain Jimbo macha allah di leen félicité bu baax a baax baax si journée boobu mais préparation combat bi sa diggante palaato plateau la moo tax coow lu waral coow li. waaw làmb gi ñoo ko jaay rek man maanaam man li ma dugg lu ne ma si pare ma ngay jaay man damay jaay sama bis man mbër laa damay jaay sama combat man ak mbër bu may mënta bëreel grand combat man bàyyi ma la xel man sama géem laay géem man maa def lu ma saf ak làmb bu may mënta bëre maa def lu may saf ba ñëpp bàyyi xel làmb gi. yee man bàyyi ma xel grand combat ak spécial yee man su may man dama yaakaar man kese ay bëre noonu la demee. sa digganteek sa digganteeg sa digganteeg cooli moo taxoon cooli bëri cooli man la. waaw maay indi boucan maay def lépp waaw man la de waaw. combat yu bëri ni Laurent wax ji la ci am. jël jël bëre beeg lépp jox plateau. waaw ku xamul xamul rek mais tamit ak comme ni ma doo waxee ko quoi ku mu neex da ne kii wax dëgg la mën mënul bëre yee mais tamit làmb gi si bëre la jeexee waaw. mais est ce que réellement nga mas ngaa bëri mbapat daan nii non dañuy waxtaan man a yow ñuy wax sa papa ngay waxal est ce que mas ngaa bëree mbapat ak nit ngeen bëree nga daan ko. musuma daanu si mbappat billaay wallaay taalaay. musuma daanu si mbapat. ay ñaari combat mbapat nga def noome. yow dama bëri làmb mbapat booyee ngi da ngay laajte ñii rek man ma maanu si da nga leen di rek tournoi bëri naa ko daanu tournoi. comme moo la daanu naa daanu naa Kayar daanu naa Thiès. dem naa Fuuta bëri gi ko jël ko. kan moo la kan moo la kan moo la génne Thiès kan moo la génne xaw ma leen quoi te tamit ay mag lañ te dañ ma ëppoon doole ndax ba may bëri si tournoi yooyu noonu. yee benn catégorie la ay jam tere ñëpp si doo bëre nag lañ teg ba ma ànd sama benn garant fii Makiou Kër Lion yee ñoo ànd ndeysaan ñu ñaar ñëpp bés boobu dañoo ñaax xaw ma sax ku te boobu maa ngi doon lu ndaw yee mais comme combat benn jooy bu ñoom yàgg ngaa benn jooy bu baax. wax baaxul sax barki yàlla. yee billaay. sa diggante plateau ñu jàpp ko ba ci jour bi làmb ji yàqu. coow li bëri. waaw làmb gi yàqu. ñu waraat waajaat combat bi yoruñu dërëm mu métti suñ côté torop barki yàlla mais tamit xam nga rek bu la yàlla naree dimbali. ñu jaayante ko. booy nii dem di jaayante moonin booy ndaw dangay gis ku uti ji feeraay ñëw sa xool ak jox la moonin ne la xool ak jënd si loo lekk wala dara. te am na loo xamante ne su la ko booy di defaral doo mën a ñàkk jom te doo bëgg di daanu doo ñàkk jom doo bëgg di daanu moo tax ko quoi billaay ñun ay jàmbaar lañ de ndax fii dafa metti sa tëtë ñun suñu yoonu làmb daa tarre dafa metti ñun luñ dund si mbapat ak si arène dafa metti torop mais mais bi combat naa am nga si jàppale de. jàppale lan. aw ma jàppale. sa diggante sa diggante place combat bi passé am nga si jàppale nag Laurent ko xool ni nga def tribune bi. maanaam booy ñoo dagal seen bopp bi waaw ñoo waaj làmb ji dem tamit xam nga jaayante dagal seen bopp bi dem làmb ja billaay yee te samay supporter xaaj bi yëpp dugguñu la ma wax loolu maanaam heure gi làmb gi premier combat mooy daw quatre heures man si cinq heures maa bi laa bëri booy bëri dugguñu balaa ñoo dugg samay supporters a ngi génn di daw ne saa daan na tamit kenn du dugg di yàq sa xaalis te man maa leen fa indi yee eh, ñu bari duggu ñu barki yàlla. ok kon su ma la déggee maam bëgg ñu jëlee le premier combat yóbbu noonu la demee man loolu laay bëriwaat sax balaa maa bëriwaat sax foog ma am oto boo xamante ne su may bëri damay wàcc sama combat damay xanga dem tamit gaan di dugg si dëkkee gi yooyu noonu. di dem dina di ñëw barke yàlla affaire dafa metti gaan fa metti lu ñuy dund gaan daa tarre billaay wallaay taalaay yee da ngay dem ba benn ins ne li làmb jaru ko boo dañuy jeexal ta ba mu bëree ba tey yoruñu dërëm man maa tax ñoom yoruñu dara. li nga wax ni li bëre ba pare ñoo ma jëndal ma reer am ndam ba pare ñoom ñoo ma jëndal ma reer dafa metti barki yàlla. làmb kenn xamul lan la. est-ce que autorité nekk fii jàmm ngeen jàppale. kenn jàppalewu ma amul koo xamante ne fii autorité man xaw ma sax ay autorité fii xaw ma leen waaw. léegi sa sa diggante ak plateau combat am du am ba nga ñëwee ci stade bi nga dajee ko dongalee ñaar. waaw noonu la demee non man ba may génn gaale laa xam ne ah làmb gi day am moom bi moom du yàq su yàqu woon su yàquwaatoon damay bàyyi bëre. waaw waaj deux fois mu yàqu may xam ne man cet bu nekk sama yaram duma baay bàyyi damay bàyyi bëre laay bàyyi ma génnee di départ yee ma ne leen ay ca comme guerre jot na nañ dem guerre gi ñëwaat taf taf xaay na bilaay bi si mee ci biir géew bi ñaar la moo tax cooli ci biir géew bi ñaar seen cooli man la man la may tooñ man la de maa koy tooñ moom kay defuma dara man maa weex donc dama mën a tooñ rek waaw man la yéene wan ko seetu ma dem jàpp ko ba mu taxaw wan ko ko par force waaw maa ko tooñ de moo sensee ma bëre ba pare weccet sax yoruma ko maa leen doo dooleel xaalis dagg nañ ko jotuma dara su ma amaatee combat sax yee lu raw dagg yooyu nañ ma dagaat man nañ mee dagg rek mais man moom lu ma sama booy defloo ne ma def ko wala won ko ya amul ku yàlla bind koo xamante ne ni di nga ma ko tere ndax booy lu ñuy daj di dem si àll bi di ñëw luñ ma defloo dama koy def duñ dem ñëw ma koy xanga mi niil si zéro daal dañuy daj loo xamante ne nii man it demee si géew bi luñ ma defloo dama koy def waaw. am amateur yi bëri na Laurent combat bi. ci gaalaaj la ko teg mais tegu ko si bëre kon dafa mel da nga dëgg seen wax. làmb gaalaaj la. booy bu ma si mën a takk ba doo yëngu dóor la ba. laay nañ bañ a uti ji gaalaaj ay si gaalaaj la ko wéer la wax. booy bi dañoo taxaw xeex. yee maa taxaw moom di xeex. yee tamit jàmbaar dañoo doon naan day bëre du bëre. dañoo jàppante rek làmb gi geex loolu bëree fa am di. jàppante wuñ ciy jàpp taxaw manière u mag yeewu de. dañoo jàppante rek bëre ndax man moom tàmbu ma loolu ndax dama neex si écurie boo xam ne ñëpp ay bëre. est-ce man man moom santeeru ma sama yaram mystique. mais xam na ne da nga moom soo leen déggantee sax mu nel santirul si yaramam dara. yee su ma ko nelawaloon du ma dóor coup dal dafa ma dóor coup dal. coup dal la ma dóor mais coup boobu noonu dawul sama yaram. mu wàccee garam ma fayu dóor ko tamit coup dal. Eh, fekkoon si gàllaaj la loxo yi du jug. non moom parce que parce que li tax changement de bi am instant boobu noonu moom mi ngi woon ci làmb ji mais bi arbitre bi sifflee bi mu sànnee koom boobu après moom moom pare na ci làmb ji gisaatu dara. waaw affaire yi tamit miin géew la gi nga man damaa ànd ak ay mbër ba sonn man bis du rëy si man de man su ma ñëwee si bis. yéen ba sonn yéen mbër nga àndal ba naa fekk ay mbër. ay Batista ay Liss Ndiago ay Makiw man damaa gi nga man dama teel am convoqué si la combat Liss bu ñëwee sa kaw nga am fii lan yi maa ngi suuf de non bii passé rek yàgg bi ci si kaw nga yëg ah combat Liss dañ may convoqué mais man nitu buriwu laa man damay yëngal yee damay dem ba foofu noonu gaa nam foog nga yëg sinon mun nga def dégâts boo xamante ne mun ñu ajaale sax ak écurie bi li ma am licence nii sax moo tax yenn buri yi defatuma ko sax mais man ma duggee si làmb de jeex na dof bee ñëw de waaw ñun wéruñu suñu këyit a ngi fii ay kayitu dof waaw. Hmm. noo ko daane ni man moom ni ma ko daane xaw ma ko daal jàppante nañ daw dóor na ma dóor xàccaat ko daw jàpp samay tànk bar sëñ oh. bu am na doole nag daa entraîné de mais man dama mën a bëre moom daa entraîné am na doole ma jàpp daw dóor ko kalu malien bi kalu. bëre waa Guinée la Guinée Bissau. daw di kal waaw di kal. mi basé wusi si bi de oh ma wàccee sama loxo. mu ne ayca comme dañuy mbotante moom plateau mu ne dañuy mbotante. ma ne ko nii xàcc mu ne ay ca yox la mbotante ma felax sone waaj samay tàng mi bàyyi xel tegal siis ma dompat ko. Ah, kon dompat dafa am ci làmb dompat dafa am ci làmb. nice. dama ko ñompati. ah bon waaw. mooy ko de. na nuñ doo jàppante ma màtt ko. mais jàppantewul. non màtt ci làmb ci bëre su ma mënee jàpp sa bët bi di ko génne dama koy bëre dóor man damaa ñaaw bëgguma coofee sama kanam gi lu si waaye def mool na. mais combat bi dama laa seetoon yooyu te te gisul nga dem ardo. man lañ songu de songewu ma booy nii duma si songu kenn damay taxaw di la duma di la dóor dangay ba dangay bagaar bagaar raase de. ay raag deret tuur ñu ne góor nga. ah ñu faat la fóot la de ragal du foot la ñu raag ba naaw de ñu ne góor nga Laurent kese. bi jeexee nga yëkk nga woo. waaw ndeysaan moom nag maanaam sportif la quoi. bilaay moo ma woo. baam boobu baax sax boobu dafa mool boobu yorul sa jikko mbër dafa baax. moom moom nit la. boobu baax la barki yàlla. ok di ko ñaanal yàlla. def ko champion rek jàmbaar la billaahi boobu rek ma yéem si mbër ah boobu kese ma yéem mais kenn yéemu ma man dara dawul sama yaram waaw te dara feesul sama bët cooli bëri na de cooli waaw cooli cooli mën waaw cooli cooli jëm man néew ma di bëreeg booy muucaa yooyu noonu de. booy muucaa yooyu comme ñan. du ma fi tudd sax benn turu booy mais nga booy ku ma si jàll ma xëy daan comme nii la rek ñu ne booy da nga kaa mën wala da nga kaa dool booy bëreew ma ak ñoom booy bu si toog di basé wu si man barki yàlla di nga ane balance. billaay walaay taalaay. ah waaw. te man bëreegu ma booy pareeguñu waat ma bëre suñ paree rek naa bëre. booy ñooy pare booy ñooy pare man déggoo li ma la wax damay jëli ji li ma moom rek. yee booy laay déglu rek. yee booy nii di bëree di daan di daanu ku si nekk na nga xooli ji koo bëreel mais man moom bëreeguma ma. waaw te bëreew ma ak booy yooyu di wàccee sama bopp di cuubu sax boo yoo xamante soo dagee ñoom dañuy mel ni xaru yar dañuy topp sa ginnaaw. billaay walaay booy xaaj bi yëpp nañ dañ may dañ may jël pour ñu fotow suñ toogee si média bi di dellu fu ne la ñuy waxee booy bu ma si degeel si mbedd bi di nga dégg muñal naa la def loo xamante ne ni. waaw yow gars yi ngay jéem a sële a yow xamante ne booy yi xam naa booy yi yaa ngi dégg yan booy nga dajal ci mbedd bi ñuy jéem photo ak yow. booy yee ngi laajteel barki yàlla te booy su ma ñoom xool damay bañ booy sib ne sax kii moo ma doo tëkkoog yooyu noonu barki yàlla mais tamit booy média bi moo leen tim comme nii la rek ñuy wax. man li ma la wax si signature jëfee naa ko li ma la wax deg man yow gis nga ni jëfee naa ko yow yee te noo rek foo jëm waaw fu ma jëm mooy loolu na ma gaay na gaay ñëw ñu bëre yow xam nga la xam nga ñi ma war a bëreel man kay ñi nga war a bëreel xam naa yow ñi nga war a bëreel xam nga ko bilaa xaw ma xam nga xam naa man yow ñooy wax Laurent non xaw ma leen xaw ma ñan laa war a bëreel mais c'est adversaire xam nga leen yow samay adversaire comme ñan la. Modou Lo ak Balla mais say adversaire yow say adversaire potentiel ñoo xam ne ni tey boo waxee amateur yëpp dañu xam ne lamb ju jaarul. Balla Gaye soxla ak Modou Lo. waaw la ko defal parce que la may wax chaque jour bu dugg mbagg boo gis maa si nekk si bi ñaan nga yàlla bëre ñu nekk si kaw waaw wala déet. Ah, mais ñi xam te ne voilà ñi nga xamante ne ñoo lay yóbbu si kaw ñooy tax nga mën a àgg foofu ah. mais xam d'accord yooyu ba tey maa la koy maa lay ñaanal nga àgg fa. mais say adversaire ba tey. non nag catégorie non non xoolal wuyu ma xamal li nga ñee say grand la àggagoo fa. ñu ngi lay ñaanal nga àgg fa ba romb ba romb ba romb sax si làmb ndax làmb la may wax sax suñu mbër lu mu am ci làmb rek mérite na ko waaw wala déet. mais man a yow ñooy wax say adversaire potentiel. mais nag man yow da ngaa jàpp ne ñoom ñoo ma raw man jàpp ma lool de. Balla Gaye maa gën a siw wala Modou Lo. da toog fu ñu waxee Balla Gaye waxuñu Laurent wala ñu wax Modou Lo waxuñu Laurent. yee te ñoom ñooy yónni ay booy yu may tëkku xam nañ ne comme seen kaw laa jëm Modou Lo ak Balla yëpp. kon booy yële tëkk yëpp Balla Gaye Modou Lo ñu lay yónni na booy Modou Lo na booy. Modou Lo comme yónni. Modou toog na fekk booy yéen a ngi gis ana preuve. booy yor nañ affaire yi. man boo xaw ma ko même Balla gay yónni na benn booy xaw ma rakku kan la. yee boobu moo toog ne Balla Gaye moo ma ne ma tëkku Laurent. yaa ngi dégg mais boobu tamit day xaar. su ma neex indi sama gerbaat mu tëkk booy boobu sama gerbaat bu jigéen. waaw Zawel mu tëkk booy yooyu noonu mais man. yee Balla Gaye laay bëreel wala Modou ama seen xoolu mox suñ degee si mbedd bi dañuy xeex ma ak moom seeku ñu làmb xeex lañ seek si mbedd nga dof du wér ay yow maa gën a dof man crési laa wéru ma du wér day tane taay si nga ama seen jegewul sax fu ñuy dofee xamul sax ku dof ma gis naa yow da ngay wax Balla wax euh, Eumeu Sène wax Modou mais Gris Bordeaux ba moom moom boole woo ko si moom. yow doo baa Gris Bordeaux nga naan Gris Bordeaux man Gris président mooy borom dóori de. président ñaan. président tous lamb gi man maa si président kenn du ma président kenn du ma chef de quartier ah kenn du ma député kenn du sama roi des arènes lamb gi lépp man la. làmb ji tout est benn man la Laurent waaw géejawaay am nga fa adversaire yoof ngor am nga fa adversaire yëmbal fii am nga fa adversaire adversaire boo xam ne dox nga ko mbapat ñu ne da ngaa delloo avance bi man Laurent man say affaire damaa jaaxal quoi non man moom mbapat ay dox nañ ko mbapat ak yooyu noonu combat bi taxoon déggoon naa sax taxoon na ba nga lekk avance nga ñëw bëréwoo loolu mosuma man loolu noonu yow deg yaa man lool xaw ma ko sax barki yàlla xaw ma dafa leen di gëstu man dama leen topp di leen gëstu. non booy nag léeg-léeg ñu toog bëgg bës ni wax leen saf de <laughs> man moom new ma fi di taal benn booy boo bëgg a tàq da taal sa bopp. da ngay ñëw taaw xeex bëre daan. non non booy yi ma la wax nii dañoo xeex ta bëre daan ñoom ñoo la njëkk sax bëre ba ko gis nga ko kii ku si mel ni gaynde gaynde nee na dafa na vidéo avant seen combat mu ne Laurent ak plateau ku daan waxu ku daanoo de mais nee na ku daan pare na pour bëre ak yow. na pour bëre ak gende bëréew ma ak moom. la moo tax bëréew mën foofu na jël lépp bëréew ma. gende yaay kan xaw ma la jëlal lépp bëréew ma ak yow. seen combat ma pa dox nañ xamante ngeen bàyyil bul jéem a sëlëm gars yi man a yow ñooy wax. xaw ma ko. waaw neel yow moo la mën rek kay. yaa mën jëlal lépp. waaw kay bëréew ma ak yow. ak kan. sa diggante ak sa diggante ak liiru jaan mu ngor. na jël lépp. liiru barew réew ma ak yow. da lay daw moom. waaw cofal daw jëlal lépp dégg yow waaw. ñoom ñooñu nañ bëre seen biir na comme comme man le bëreewu maa ngi nañ bëre seen biir. booy waay booy dama leen xam sax booy man musuma leen gis xaw ma leen seetaanu ma leen aw ma temps ñoom comme ni ñu toogee di ma seetaan aw ma temps toog di leen seetaan man làmb yee su jeexee da jeex sama combat sax yoruma ko sama kool yee ba ma fa jógee fàtte naa man maa ngi xool nu booy di tekkee yee néew ma si làmb yi di dof dof la nag mënuñoo mënuñoo tekk te te laale woon nag booy moom pour ñu tekk ñaar mooy maanaam mooy nga simeeku di bëree di daan lan laay def waa d'accord mais bu fekkee yow adversaire yi nga war a bëreel nee nga bëree woo kay ba pare nee nga pare woo pour bëre waaw léegi booy nga may su ma bëreewul ak ñoom duñ bëre ñoom ñoom ñoom kay ñoom kay nekkuñ fii waaw nañ bëre léegi man ñi ma war a bëreel léegi nii rek nga dégg ne am naa komba incha yee mais man moom ba fu dëgg yàlla moom tamit nit toujours doo ñaan yàlla di arrière ah. avancement rek waa xam nga la ñuy xool waaw le 6 lii xew soirée sénégalais sargal Liss ak Laurent le 6 mairie Diamaguène yee le 6 novembre mais loolu dina escate ordinaire rek. bés bi dina ala daw mee de. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ci jeexatalu émission bi SBT Média seen émission seetu mbër ñu seet si ki nga xam mooy Laurent Ndiago dégg ngeen adversaire yi ko wax mais yëpp daf ko sëgg esquivé ko donc dégg ngeen euh, ëllëgu làmb mais am na ñoo xam ne moom mënoo mënoo mënoo mënuñu ñëw fii ba wax te di ma euh, nu mu ko leeral sa diggante ñoom actuellement nii am na ñaari adversaire yu ñu lay wax. waaw instant bii nii bu dëgg neexee man Bou Siteu lañ may wax te booy ñoo bëgg man Bou Siteu bëgguma ko yee eh, ndax Bou Siteu nit bu dul rëy Bou Siteu moo raw xoola ginaaru pettaaw Bou Siteu ko raw bu mënul rëy yaa ngi dégg bu daa jebet du ñaq loolu rek tamit da nga koy daan xam ne kii nga daan ni daa feebar daa jebet yow bu naa gis mi yow bu ba nga xamee ba tey gisoo si moom changement man keroog ba ma simee koo ñëpp a ne booy bi xale la yee Bou Siteu booy ñoo ko bëgg man bëgguma ko de tëkkuwu ma ko soxlawu ko su ma ko jàppoon daan ko day ne cim ax yaa xam mën rek booy mooy loolu soxlawu ma fu ne lay toogee di wax yéen wax leen de bu si de desitu hôpital la bu tollul ni nit ñi bu gi nga man xaw ma jigéen ah aw ma jabar aw ma dara man làmb laa fixé di bëre bu su bëreek man day day am xaalis day feeku ndax lan Laurent lay bëreel média bi ñëpp a koy wër dina si am xaalis dina am lu mën a yóbbu gàlle dépense ak yooyu yaa bu raxam fii lay say raxam billaay wallaay taalaay moo max siñ taaw kër buusita sama magu papa lay maaseel yaa bu moom max fuuf comme kooku su ma daane daanee xam ne maa ko mën rek taam nag maa ngay dégg si média mi wax amoon temps di wax si moom bu su bëggee bëreek man day lëmbal takk ay fer lëmbal pour ñu bëree mais bu man xoolu ma ko yee eh, te bu naa lool leen de média bee koy tiim nii may wax mi wax de billaay wallaay daje nañ foo xamante ne lan lañ wax ak fekkee lu ma lay wax amul fii ma toog yàlla bu ma fi jug lu ma leen def yëpp maa ngi jégalu comme tamit man xam nga yee eh, man lu may wax fii nii de suñ degee dama koy jëfee mais bu sax suñ degee daf may jégalu bu dañuy daje xoola miy def ay supporter ay seetaane naan booy ñoo ñuy jaxase yee eh, mais ñun ñoo far yii di ñoddi mais loolu Dawson day wax loolu noonu su toogee si média bi nekk secteur am di dof dof lu eh, ñun ñoo gën a doon ay gende foofu ñun luñ xas ba wax li bu tey jii nii ni ma doo waxee nii su tëlloon nii léegi ma kale émission bi dañuy bëri par force léegi nii te dama koy jooy ay jooy yu gaaw koo xam rek waaye bëggu moon di wax si moom mais fu ne lay toog di wax yow booy dofoo dof dof lu woo yeboo ma sax yee eh, nit émission yi di la seet si moo tax ngay wax si man mais bu dee yow ak yow doo wax si man. njëkk a seet la njëkkee seet nga ne sa diggante ak Bou Siteu. waaw parce que booba ñu ngi dox digganteem ak Liss Ndiago. nga ne balaa muy bëri Liss Ndiago day bëree ak man ba pare. bu boobu doxuñu moog Liss de moo toogoon si média bi di wax te boobu su waxaloon sama tur ma wax si moom de déggoo li mu wax man la romb may dawal fas. mu naa am Laurent ma daw man du ma dawal sareet nga maamal ma maamal dafa daw nii la ko doo booy bi daa jug dafa daw dafa maamal ma du ma dawal fas sama booy ñooy dawal sareet yaa may yéeg fas waaw man fas sax moom gënal oto yaa ngi dégg mais tamit xam nga am na wax yoo xam waxu dof la yow bu man naa ko mën bu dee xeex mbedd laa maa ko mën fuuf maa ko ëpp doole maa ko gën a soxor maa ko gën a xam nga bëgg a ñaaw yee tamit comme buu dina ma woo si bataille psychologique may daw man ay raak ay yooyu noonu yow bu du ma dara ma kay waa di ka bu day daw peloton. peloton mooy lan day daw peloton man du ma daw peloton si ku yàlla bind. non daw peloton mooy lan ñi nga xam ne ngi si rente yee tamit nantey dinañ xam lool. yee mais day daw peloton man du ma daw peloton de. nekkul ay nante nag man bokk ma ci nante ñi lay si naan nekkul ay nante. man laa la wax man daw ma peloton man zooke laa. damay beñ ba xëy dee. yee man daw ma peloton topp si nit di yaam a gën a xam bu leen la war a def mu doon affaire de góor yàlla dëgg yee sans toog di xaseeg yooyu noonu mu ñëw ñu reyante yee deret tuuru ñu ne góor nga billaay wallaay bu suñ doo bëre maa moom du ma ma jàppanteeg moom ma koy dóor ba mu tëddal boppam maa ko mën fuuf tëkkuwu ko soxlawu ko sax tëkku yee mais tam boo fa bëri wax fu ne lay toog di ndelu yee lan la moo ma njëkk a bëre ba muy bëre bëreewu ma mais ñu mu bëreel man du ma bëree ñoom. ñu mu ñoo xam ne doo bëree ñoom. yow jadi jadi mbër la. waxal. jadi jadi bii bëreeg ay yaaw jaal ay comédien kooku mbër la naa bëreeg jadi jadi man barki leeru alxuraan jadi jadi su desoon si làmb ma bàyyi bëre kooku comédien la duma ma moom. yow bu ñooñ la bëreel ay nëb ay nëb la fi bëreel di ah. waaw. mais nag champion la bokk ci lam bu mbër yi mbëreel dëgg dañ kaa daan waaw ca mbër dëgg la daa daan Bou Siteu bu ay nit yu dem ba ñëw xam nga ba ñëw pour ut lu ñuy suturloo lay jàpp bëre ñoom ñoo xamante ne billaay wallaay sama jarbaat bu jigéen moo leen mën lay bëreel di leen daan toog fu ne di ndelo ñu new ñu si loolu de ñu ne ñuy bëre suñuy morom yee man ñu muy bëreel bëgguma leen soxlaw maa bëreeg ñoom. xam sànq laa la wax say morom nga ne bëriwoo ak ñoom. ba pare ngay taxaw di wax ni yiwit nag. te ku ma buu si tëddee dégg nga li ma la wax man soxlaw ma bu tëkkuw ko booy ñoo bëgg ma bëreeg moom ndax lan lu muy wax dafa bëri. yee mais man buu tooguma di ko xel. billaay walaay taalaay ma xam naa lii nekk sama kanam si làmb moo gën a métti fuuf booy yi nii yee maag buu du kaa. non Bou Siteu wax ni fii nga toog sama fiyaa war mais ñi mu avance Bou a ñëw nga lekk barki yàlla soo ma woon téléphone ne maam buntu gaale Bou Siteu ñëwal ñu def fa émission fekkee du ma fa ñëw yàlla bu ma daanati mbër billaay wallaay taalaay yaw bu yabu ma de média bi moo koy tim comme nii rek mii wax yee yow yéenay wax sax bu soo defateeg moom émission su jeexee neexoon ndax lii nga wax si Laurent dëggu na si yow wala dëggul man kay mosuma ko jël émission bu yeesoo bee mu wax ne mu ne dalaa ne eh, ay yi rek nga maamal. waa noonu la deme loolu lay wax mais damay seetaan ma damay toog di gis ay ay émission yoo xamante ne day wax ay waxit dof damay ree sax. billaay wallaay taalaay bu bu du kërési sax ñun ñoo gën a doon kërési foofu ye kooku du mbër daa jebet bu du ñaq bu sita du ñaq bu sita Boucher mun na doon sax ginaaru firgil ndere nga naan lan Boucher du ñàkk du dërëm. est-ce que xam nga combat bi Malick Ndiaye da ko wax na ginaaru kookali nga de mais gis nga ginaaru kookali bi mujjee ni mu def. waaye mun na doon sax firgil ndere laa la wax Boucher de waaye yow Boucher ba mooy si média di wax dootul am jàmm de bërë boobu noonu. waxuma la toog di ko tokku de suñ dajee estar sa bañ ma sensee añ ma dinañ raag raag boo xamante ne nii. moo raag ak moom wax ni mu xalaatoo ko sax. su fukki xel ak juróom xalaatu ko yow billaay wallaay taala yow yaa wax ni sax non non man xam naa la bu baax xam buusita Siteu ñaar ñëpp xam naa la yow bu ñu yàgg a daje feneen fu dul xoola foo xamante ne nii du làmb buu daf ma baalu suñu signature yi nii suñu signature yi passé nii arène nationale ñoo bokk làmb après sama benn booy moo doo kalaate benn booyam bu muy ñëw jàpp yóbbu yeey ñu dem ba côté mooy police ba billaay wallaay mu def ay booyam xoola ay seetaane man du ma toog fenn di wàccee samay booy naan booy ñooy seetaan ñoo may jaxase yéen ñun ñëpp benn lañ yee combat bi dafa doo daw peloton si man di daw samay supporter samay supporter lool dawul seen yaram day ñëw ñu ne ko ayca us demal yee da ngay jógal fii toppal fële bul dugg si loolu puusal foofu njaago bi da ngay tere billaay wallaay taalaay te man mooy loolu bu ñu muy àndal man lañ faral bu gàllem man lañuy supporter bu raxam a ngi sëy fii raxam moo max siñ taaw kër yee comme kooku su ma ko jàppee daan ko ay ree la may def man safuma Bou Siteu du ma ko daan bay dem si arbitre naa ko yëkkatil sama loxo dama kay daan romb arbitre ndax maa ko mën du bett kenn yee tamit bu du ñàkk bu daa tawat bu daa jebet ba yàqu wax ma lan nga parce que man mosuma fee ñëw nga wax Bou Siteu nii te nga ñëw saa si nii comme ça. ma ko dara bu mooy wax si man da ngaa a gis may wax si moom bu du ma wax si moom de mooy wax si man. non njëkk naa ñëw fii nga ne bu bëggee nga ne bu bëggee bëree Liss Ndiago day lëmbal fii doo ko bëre. xam daa wax si man quoi may wax si moom nga ne ma liis la soxla ma ne bu bëggee bëreeg Liss day lëmbal wala mu njoof bal bi yee sama jarbaat bu jigéen lay bëreel zawel te zawel la ko mën loolu laa la waxoon mais bu yow boobu ba tey bañ bëree ba pare mooy toog si média yeeg fu ne di wax. parce que gars sa diggante ak mooy leen mooy leen kooku kooku ma. garaam la man soo sama diggante ak ku ma neexul dama lay ne bëreew moom moo ma mën na jël ndax kooku neexu ma bu moo gën a bëgg a bëreeg man man bëgguma ko soxlawu ma buusita. buusita Liss bi ma ko waxee Liss Ndiago dana ma non bu wax waxul Liss Ndiago man xooluma ay Liss Ndiago. yow comme yow bëggoo làmb da bëgg làmb yàqu ndax tey jii nii li su tee buusi da koy dóor ba rey ko après làmb day yàqu ndax ay reyante moom si làmb Sénégal day jeex yee tamit xam nga buusi ak lis bëréwuñ maa moom soxla soxlawu ma ko tëkkuwu ma ko yee tey suñ ma indiloon avance am booy suñ bëggul du ma bëreeg moom man soxlawu ma ko booyee ko bëgg yee làmb mi sànq da ne ma fii booy ñooy bëgg lu booy bëgg loolu laa bëgg comme booyee ko bëgg kay bëgg nga waaw moo tax ma ne la booy nii ñoo booy suñ ma nee woon bëgguñu nag bëggu ma ndax man soxlawu ma ko mais booy suñ ma ay ca demal rayante ji ma dem guerre rek. loo ko yóbbante. yóbbante wu ma ko dara loolu su baal si toog si méga di wax si man suñ degee wax ma la stade wala làmb de dañuy dox ba degee rek ma poñe ko mettre ko en respect su ma xëppoo suuf toj mbaari di nga sangoo sa deret yee. est-ce que xam nga Bou Siteu bu baax. soxlawu ma kaa xam xam sax moom moo ma xam. mooy daw peloton si man di topp sama ginnaaw ye mais man bëgguma xam bu Siteu soxlawu ko xam géej waay foofu mu dëkk maa ko fa ëpp mafia foofu gars yi man lañuy gën a bëgge ka bu Siteu waaw di nuyu waa géej waay bi yëpp waaw tamit Médina bi yee Fass bi bilaay town yëpp man ñëpp a may bëggee yee man foo dem ñoo may bëggee man di waaw di jégalu ñëpp di bëggee ñëpp barki yàlla yee formation yu bëri sa diggante ak Malick ñu ngi koy dox. déggoo li ma la wax bëgguma ko man bëreewu ma ak Malick Ndiaye 37 fu moo soxla genre yooyu man bëreewu ma ak ñooñu bëreewu ma ak ñooñu de. bëreewu ma ak ñooñu lum daan la sax moo tax booy bëgg ma bëreeg moom su daanu woon sax du ma bëreeg moom xam naa man dama fi nekk di bëreeg booyoo di tamit waaye yow nga mbër da ngay bëreeg mbër. Malick Ndiaye 37 fu mbër kaamil. Malick Ndiaye champion la ndaanaan la mais man bëreew moom li ma magee duma ma bëreeg moom mais ma moom quoi. Boussy lu mu doon làmb milieu sax làmb nante moo tax ma xam nga booy ne ma jël ko yooyu noonu mais yow ay Boussy dañuy doon mbër yoo xamante ne nii daw nañ sama yaram. ku wax mbër mu ndaw wax jàppale te combat bi ko jógee wax dëgg yàlla am sonn nga ci. te comme ni nga ko waxee autorités yi nekk jàmm gën si Kambaaw nee nga gisoo ci benn autorité donc di ñaan autorité nañ jàppale xale yi parce que ñoom bu ñu jógee fii drapeau jàmm gën couleur jàmm gën la ñu porté donc nañu xam loolu xam na ñoom seeni doom lañ seen ay rakk lañ seen nañ a baax a baax ndax la may wax chaque mooy ku nekk si waaram di tey Lonase am na ñoo xam ne tey tolloon nañ fa te tey maasàllaa bi ñu góorgóorloo ñu jàppale leen suñu borom dimbali leen ba ñu àgg ci kaw nañ gën a jàppale xale yi baax a baax baax di wax ne SBT Média seen émission seeti mu mi ngi noonu lan ngay tàggoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi waaye di jégalu ñëpp. di sant sama papa Kéba Kanté. ñoom Bas Thium. tamit xam nga booy fii ñoom Ndiol ñoom Boga Youssou ñoom Dame Gueye affaire yooyu ñoom Arma xam nga. tamit waaw di nuyu sama yaay Fatou. asu yaay Fall xam di jégalu àdduna ñoom Fa Sow ñoom Fa Ñang nga di baalu ñëpp àq gaan di woo ñëpp ñu jàpp si ndax ku si waa ku si jàpp rek dasee war a jàpp ku ma jàppale ma doon champion mën naa lépp zooke bay wax ak de di jégalu ñëpp nag suñ juumee si kàddu bi di jégalu ñëpp di baalu ñëpp àq yee bilaay ñu ay ndaw lañ dek amaguma at su ma waxee lu ëpp rek dama juum sama deret mooy circulé doon xale di jégalu ñëpp bilaay ñu ngi doon SBT Média la seen émission seeti mbër ñu seet si woon ki nga xam ne moom mooy Laurent ah, borom SBT Média mi ngi noonu leen jox dig daje ak beneen champion ak beneen daanaan ci SBT Média jërë ngeen jëf